de journaux waaw. waaw merci man de sur la une des journaux d'abord le premier point qui m'intéresse souvent mooy les accidents. Mhm. le Sénégal dama ne c'est un pays émotif. Mhm. saa dara amee rek ñëpp jóg. et lii am nii c'est prévisible et puis bu mu la bett sax ngoon wala ba nga déggaat ko. Mhm. xam nga problème bi mooy euh, Sénégal dañu bëgg a régler problème mais il manque de de de volonté politique. accident. amul benn oto xam nga dama jël benn jour ba euh, je m'excuse en anecdote dama loué benn taxi clando mhm. may dem ñu arrêté ko mhm. fo euh, waa ji jël permis bi dem ma ñëw def intervention ma yàkkamte ma ne ko doo ko defal euh, contravention ñu dem mhm. mu ne ma non non ma ne ko non non man dama yàkkamti si la fait une infraction nga jox ko ba pare sax ma ne ko rek kii ban infraction lay def man moom xam na ko man ko noonu yow laay laaj d'abord pour ñu bañ a sori je me présente comme ça ñu xamante je député. maay mm. voté loi yi maay suivre euh, euh, évaluation pour di doxee. mais du ma xam rek kii ban infraction mm-hmm. ma transport irrégulier. Mm-hmm. ma a ko c'est toléré par l'État. ok. ma ah ma ko gisoo ay garage ay garage clando. gisoo mm. tel gisoo tel car rapide bi njaga njaay bi. kenn warul daw transport irrégulier c'est l'État qui l'a autorisé qui l'a qui l'a toléré. toléré pas que koo ku ki ki ki nga defal contravention bu dawaat 100 mètres kii da nga ko war a immobiliser waroo waroo ko def contre a immobiliser. tout à fait c'est-à-dire garage clando yi ñu fermé ko quand l'État tolère on vous met mal à l'aise. Mmh. cela dire que da nga gis ay conteneurs yu pneu xam kii nag pneu bi mais xoolal conteneurs yi wàcc. c' est des pneus usés. tali yi cabossé beneen bi gën a grave en amont comment l' état est responsable avec les communes le FERA. c' est le fonds d' entretien routier. pour réparer tali yi la. mais tali yi kenn mënut ko réparer parce que l' objectif du FERA dañ ko def ci ci xëyu ndaw mi def ko politique d' emploi ce payer pour réparer les routes. dañu jël ay xale pour lutter contre le le sous-emploi di leen ko liggéeyloo le dëtt di fere amatul lu mu fayee lu mu réparé amul lu mu fayee sa xale yi mhm. ku mu fay mois bi nga toogaat cinq mois six mois tali yi di yàqu pneu yi di yàqu moom muy embellir muy am embelliru accident yi di bëri mhm. amul kenn ku am visite technique bu war am assurance oto yi daanu yëpp mais koo ci xool dañuy perte amuñu mhm. assurance donc voilà les problèmes sur lesquels l'État doit revenir nañu arrêté hmm. on arrête on remet le parc automobile à neuf hmm. mais njaga jaay yi daw nii hmm. amul kenn ku la ci mën a génneel attestation technique voilà mënu ko am c'est impossible cela veut dire que l'état est complice de ce qui se passe mesure bi fi Mansour Faye jëloon yëpp da ngay gis benn oto bu war a am vingt place ñu def ko trente cinq place j'ai fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale ba léegi ci ak Mansour Faye ñu ngi daw c'était que tous les équipages des transports publics seront seront seront habillés comme ça en tenue traditionnelle apprenti bi dootu taxaw day sol parce que euh, kii bi nu mu tudd la tenue day influer sur la conduite. ok chauffeur dem dëkk bi yor cravate di dawal. waaw da sa toog. jom mën a def yenn yi. jom mën a def mais chauffeur Ndiaga bi yooyu mel noonu sol apprenti bi sol yore débraillé kii sol yore def nii kër këram gis nga buy dawal. Mm-hmm. ni yëre yi mel noonu lay dawalee. man a fait une proposition de loi pour que maintenant tous les transports publics les équipages seront habillés correctement oto yi day set comme ce que ça fait en Europe. Mhm. ñu ñuy dàqante bu ñuy laalee rek transporteurs yi daw comme permis à point yi. waaw c'est le seul c'est la seule solution. Diomaye mhm. lu mu def te réglé permis à point dañuy dem leen beneen bi nag mooy sur le final j'ai entendu les maires mais tant qu'on change pas la nomenclature la nomenclature budgétaire. budgétaire ku ñu jàpp ku ñu bëgg a jàpp jàpp les maires su sur des fauteuils éjectables. Hmm. boo bëgg a jàpp maire rek suba nga jàpp leen. Hmm. parce que nomenclature bi. Hmm. mais xoolal leen le maire de ma jël benn maire rek le maire de Fongolimbi màggalu euh, gàmmu Tiwaawan am. mais maire yëpp maire yëppay di joxe. te xam nga ne dans la législation financière aucun maire xaalis bi warul génn sa sa circonscription communale. te le maire de Thiès mun na dem euh, Touba joxe fa dafa amu ci droit mais bu ko deful coow topp ko mais bu ko defee su ñu jàpp ko. Mm-hmm. dans le statut des conseillers municipaux aucun conseiller municipal ne doit pas prendre un franc de la mairie bu ko lekkee jàpp ko et c'est tous ce sont les premiers indigents. tout à fait dañ leen war a jàppale. parce que quand les conseillers sont des chômeurs. Mm-hmm. yow am nga droit au niveau de la commission nga dimbali nit parce que yéen indigent mais yow amoo droit lekk ci ban conseil municipal moo mun a waat ne il n'a jamais pris un franc un secours de la mairie. Ouais. mais maire na leen jàppale. Mm-hmm. tu donnes à à à à à un conseiller à un adjoint du carburant il n'a pas de véhicule mooy dama jaay carburant bi.